asalaamaaleykum internetu Sénégal Infos ñu ngi leen ni nuyu di leen ziar bu baax gars yi gëj na ñëw si programme bi fan di ñu am ay jafe-jafe bu ndaw rek si bile réglage bi waaye maa ngi leen di di leen ziar bu baax di leen woy di abonné si seen bi ko partagé gars actualité la ñu ñëw rek euh, Macky Sall notre premier investissement c'est d'abord l'APEX wala moom di njëkkata réew mi moom di président Macky Sall nee na moo di déggoo ak lépp li nga xamante mun na baax réew mi loolu la ñu bëgg libération c'est que Birame Souleye Diop a dit moom di eh, député bu eh, Pastef boobu di eh, Birame Souleye Diop gannaaw ak kaddu ñi nga xamante ne si moom yëkkat na ko jëmale ko si njiitum réew mi président Macky Sall depuis loolu nag mu ngi si garde en vie moom di Birame Souleye Diop moom di ki nga xamante ne Birame Souleye Diop bu dee démb nag ñi nga xamante ne si ñoo di ñuy ndaw ñi APR yi ñoom demoon nañ ba fale si palais de la république rek ngir sargal APR si don Macky moom di njiitum réew réew mi président de la république Macky Sall euh, démb waaye euh, ñi nga xamante ne si euh, di ñoom di waa benn bokk yaakaar ñoom nag candidat bi nga xamante ne si boobu la président Macky Sall waroon samp ngir nekk seen njiitu moom di Macky Sall lañ leen xaar rek dina